ko waral nag moo di club yu mag nekk ca Arabie Saoudite dañoo bëgg doomu Sénégal bi club yooyee mën nañu ca lim Al Nassr bu ñoom Cristiano Ronaldo ak Al Ahli bu Edouard Mendy ñaari club yooye nekk ci arabi Saoudite dañoo bëgg doomu Sénégal bi loole bokk na ci li tax nag ba Bayern de Munich ñoom tamit yokk seen loxo ndax jamono jii nee nañu 32 millions d'euros la ñu bëgg ci doomu Sénégal bi bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport nekk ci réewu Allemagne ñu jugee ci ba Bayern de Munich ak seeni bëgg-bëgg jël doomu Côte d'Ivoire bi di Jonathan Bamba nekkoon ci Lille waaye contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee nag dafa jeex tàkk démb ñëwoon nañu ci ay mbiram ne leen dina xaatim contrat ca Celta de Vigo loolee nag am na doomu Côte bi xaatim na contrat ca Celta de Vigo kon saison bii di ñëw ca Liga e-sport ba lay doxal muy Jonathan Bamba nekk gone gu mën la muy def ñu jugee ci Jonathan Bamba ak këlëbam bu bees jël doomu Cameroun bii di Onana moom nag démb ci ngoon la këlëb ba mu nekkoon di Inter juboo ci lépp ak këlëb ba mu jëm di Manchester United tey jii nag la ñuy xaar lépp yemb jubo ci lépp am na bu demee foofee nag contrat wu juróomi at la fay xaatim li waa Manchester United def ci moom nag mi ngi toll ci cinquante et un millions waaye am na bonus bu ca toftalu olof di ko wax buuñaa bonus boobee mi ngi toll ci quatre millions d'euros jamono ji lépp yemb na li des moo di officialiser ko bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic ñu jugee ci André Onana ak waa Manchester United jël doomu Algérie bi di Riyad Mahrez moom nag waa Al Ahli ba léegi bàyyeeguñu ko ndax li ñu bëgg moo di jëlee ko ca Manchester City yóbbu ko ci seenu club mu doxal def nañu seen offre bu njëkk jébbal ko waa Manchester City offre boobee mi ngi toll ci vingt et un millions ak six million yoo xam ne bonis la olof di ko wax buuñaa waaye jamono jii nag waa Manchester City nangooguñu ndax ñoom nee nañu lu mu gàtt-gàtt bëgg nañu ci doomu Algérie bi trente cinq millions d'euros bu dee Riyad Mahrez moom nangu naa dem ca réewu Arabie Saoudite fi yëf yi tagga témbee mooy ci diggante ñaari club yi waaye Al Ahli moom am nañu yàqin ne dinañu xaatimal contrat gone gi bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano ñu jugee ci Riyad Mahrez ak waa Al Ahli ak seeni bëgg-bëgg jël doomu France bii di musa Dia bi moom nag mi Al Nassr li ko waral moo di club boobe nekk ca Arabie Saoudite dañoo ñëwoon def offre bu toll ci quarante trois millions d'euros jébbal ko waa Bayer Leverkusen gi gone gi nekk waaye offre boobee nag waa Bayer Leverkusen nanguwuñu ko woon jamono jii nag li doomu France bi jàpp moo di waa Al bu ñu dellu see def offre offre boobe mën naa baax ci club bi waaye moom it mën naa baax ci moom naam club bu ñu naan Aston Villa ñëw na ci diggante bi def offre bu toll ci quarante cinq millions d'euros plus cinq yoo xam ne bonis la waaye ba léegi waa Bayer Leverkusen nangooguñu gone gi ci boppam nag mi ngi bàyyi xel waa Al bu ñu sukkandikoo ci l'équipe ñu jugee ci Moussa Diaby ak club yooyu bëgg ko jël doomu Équateur bii di Moïse Caicedo gone gi nag ma nga ca Brighton club bu ñu naan Chelsea ñoo ko bëgg Chelsea googee sax def nañu seen offre bu njëkk ngir jënd doomu Équateur bi offre bi ñu def mi ngi toll ci quatre-vingts millions d'euros waaye Brighton ga mu nekk dañoo gantal xamal waa Chelsea ne leen offre boobe ndaw na lool ñu noppiwuñu ngir jaayee lii doomu Équateur bi kon su ngeen ko bëggee yokku leen seen loxo waaye Chelsea nag bàyyee guñu ko bu ñu sukkandikoo ci sa Athletic ñu jugee ci waa Chelsea ak Moises Caicedo jël doomu Brésil bii di William moom nag ma ngay futbal ca Fulham contrat bi ko lëkkale woon ak club boobee nag ci yoonu jeex la nekkoon waaye doomu Brésil bi yokku na contrat ca club boobee agent libre la woon nag bu ko neexoon mën beneen club waaye dafa yokk contraam ca Fulham muy Willian ñu jugee ci waa Fulham ak Willian jël doomu Espagne bi di Hector Bellerin gone gi nag Barcelone moo ko moomoon waaye jamono ji nag moomatu ko delluwaat na ca këram muy ca Betis Séville bu ñoom Youssouf Sabali foofee la doomu Espagne bi dellu miin na kër googee nag bu baax delluwaat na fa xaatim na fa contrat ba atum 2028 kon jamono ji Barcelone moomatu ko muy Hector Bellerin ñu jugee ci Hector Bellerin ñëw ci Cristiano Ronaldo ci ndoorte xibaar yi rek maa ngi leen di wax ne moom ak Lionel Messi la poule bokkatuñu benn championnat bu ñu nekk waaye kujje gi day woy ba léegi Cristiano Ronaldo dafa séq waxtaan ak journaliste yi waaye li mu xamle bokk na ci fa mu nekk di Arabie Saoudite niveau bi moo gën a kawe niveau MLS bi nga xam ne fële li Messi la poule ga nekk Cristiano Ronaldo nee na wax joojee nag amul lu mu ciy segg amul tamit lu mu ci xel yaar li mu wax mooy li am Arabie Saoudite niveau moo gën a kawe niveau championnat bu Amérique nee na li koy firndeel moo di moom Cristiano Ronaldo bi mu tànnee foofee di Arabie Saoudite jamono jooju kenn xamul woon championnat boobee te kenn tamit bëggu fa woon a dem waaye ba mu fa demee gaa ñi xam ne am na niveau ci la ñëpp bàbbeeku maanaam ci la ñëpp daw wutali réewu Arabie Saoudite kon moo ëpp niveau Amérique googee Lionel Messi nekk loolee nag du samay kaddu kaddu Cristiano Ronaldo la kaddu yooyee Cristiano Ronaldo yëkkati nag maa ngi ciy xaar seen xalaat ci commentaire yi